am na ko mas a jébbalu ci Serigne Touba ca njaareem ni ko teen bii boo ma waxoon demal tàbbi ca ma tàbbi ca Serigne Touba ni ko duma la ko wax ndax tàbbi ci amalu la njariñ amalu ma njariñ te yàlla digalu la ko ana lu ci nekk kay mooy dangaa bëgg yàlla fay la loo jëful nga dima ko waxe noonu waaye loolu amalu la njariñ amalu ma njariñ demal jaamu ji yàlla loolu laa la digal